wa jang alquran ci Armel day dagan na dama xamul nak li nga bëgg wax moy lan man dugg ci bir armel yor sa kamil di jang moom dagan jangal waye nak dama jàpp li nga bëgg wax moy jangal ay neewu alquran ci bir bamel yak na loolu nga bëgg laaj wa ila alquran mom fepp fu laap rek dagan nañu jang ko lolu moy firi li nga bëgg laaj fukki lexlaas ak ak ben lolu am na ñu ko wax ne képp koo xam ne jàngal nga am néew fukki lixlaas ak benn am nga ay nangam ak nangam loolu man benn téere laa gis ñu bind ko ci mooy sarx suduur bu imaamu suyuuti borom xam-xam ne laa asla lahu maanaam jenn wax la jox xam benn waaye ko wax rek loolu saxul ci jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wérul am naa nag jàngal nit am néew comme ni ñu def wàcce kaamil am ñun dañ koy def suñu néew bi dañ ñun nañ ko wàcceel kaamil tas nañ tas kaamil bi ñu wàccal ko njàngum alquran moom dafa baax waaye nag ndax wàcc ku faatu ko ne dañ koy wàcceel kaamil bi ne yool bi yàlla na ko yàlla wàcce ci ki faatu loolu de yonent bi daaw ko def moom ndax bu ko daan def moom dañ koy nettali yonent bi la gënoon a tuuti ca lam def ci biir néegam sax dañ ko daan nettali ndax yonent bi moom la yàlla yónnee ngir ñu di ko roy ba luñ ñi wuti wax ci suñuy waajur sax ñu nettali ko ndax ñun dañ ko war a def kon bu fekkonte ne lim suul ci ay néew su na ñew mu ne ana Aboubacar mu ne magi ana Omar mu ne mu ne tas leen kamil ñu tàmbalee jang loolu dana siiw siiw goo xamantene ku jangul sax dina ko xam waaye li tax ñuy dëx dëxi di ko wër fu nekk mooy ñàkk gaa sax rek lépp loo gis ci lislaam ñu di dëxi di ko wër waa waxoon na ko fee xamal ni wérul ndax yonte bi lu mu daan def ci am penc ñaar fukki at ak ñett day leer nañ fi noonu julli kenn du ko wëral dalil woor kenn du ko wëral dalil yi sax kenn wëralu ko dana kenn sonu ci loo gis ñu di ko wër di di di gas ak xool rek ci ginnaaw bi la dikk hada wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain